te maa ngi ñaan fépp si réew mi mu mel ne fii ma Si mooy ma fekk si sama turu bopp aussi maa ngi ñaan sénégalais yi ñu leen nanu gën a ñëw voté bi leader di jàmbat wax ni nit ñi gënnuñu voté kon kay ñi ngi ñaan ñëpp gën a voté ñëw voté si jàmm fekk fi ay représentant wu parti yëf yi aw si yoon lii rek la bëgg damay fàttali ñëpp nag ni leen kenn du gañe ko dul Sénégal su vote bi jeexee kenn moo war gañe mooy Sénégal mooy Sénégal jële fi ndam lu kawe wane ni pays boo xam ne démocratie daf fi sax sax bu wóor